asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen tey dañuy ñëw rek ci euh, mercato des Lions comme d'habitude mu nekk benn mercato boo xam ne jët euh, xew ci xibaar lañ leen tënkal jox leen ko di leen bàyyi aussi ci commentaire ngeen wax seen xalaat donc euh, mercato yi li ci si mën a jiital mooy Ismaïla Sarr bi xam ne dañu ko écarté du côté de Marseille donc gis ngeen donc entraîneur bu bees moo fa nekk désert bi Iliman Ndiaye jóge na fa Pape Gueye jóge na fa benn sénégalais moo ñu desoon muy Ismaïla Sarr

c'est lu ñu xam man si euh, xam man si côté Marseille là c'est naa ay émission ñu ngi xam leen ne waa Marseille ak euh, seen président Longoria bi nekkoon Londres euh, nekkoon di travail sur le dossier Greenwood ba Greenwood ñëw na Marseille moo ngi def lu mu mën pour jël kii di Ismaël Sarr trouver le club et pour le remplacer donc Ismaël Sarr doomu Ndar bi lu ñu koy lu ñu koy ñaanal mooy mu amoon club bu amee Villarreal alhamdulilah parce que man Liga espagnole nga mën a rencontrer des Barça Real Madrid c'est c'est nice boo demaatee première ligue championnat bu mu xam la mais aussi dem bu jógee ci lii na na na gën a liggéey ne seet ay travailleurs j'espère que am na ko sax lay wax donc pour revenir au au top niveau parce que c'est un joueur bu xamante ne quand même titulaire en équipe nationale du Sénégal les derniers mois xam c'est hyper compliqué muy Sénégal muy fii di euh, Marseille donc on va voir la suite concernant suñu doomu daal bii di Ismaïla Sarr bu ñu jógee foofu dañuy wax si Fodé ballo Fodibé Touré aussi tamit nekk na benn joueur bu xamante ne voilà euh, waa Milan AC ñoo ko moom ñu prêté woon ko l'année dernière fulam amul temps de jeu bu bëri noonu bu demee noonu defaat na retour am ñu côté de Milan Ibrahimovic moom moo jël décision jël Fodibé Touré yóbbu ko si U23 yi nekk bokkoo si ay plan projet bu Milan bi xamante ne saison 2024 2025 gis ñu la si donc boo mënee trouver un club nga trouver un club boobu ba léegi nag dégguñu woon lu lu bari doon nañ dégg Angleterre Watford cette fois ci waa Besiktas dañoo def offre def offre boo xamante ne arrangé na waa Milan ba waa Milan d' accord mais le joueur euh, donc Angleterre la bëgg jouer bu amee championship am na benn club bu mu fay waxtaanal filtré gul nag mooy waxtaanal aussi tamit benn équipe bu premier league donc euh, kii di Fodé Ballo-Touré fa la bëgg dem mais euh, Besiktas man gisoon naa ne équipe bu baax la mais il s'est dit peut être maa ngi si xale laa mën naa encore jël sama temps balaa ma dem ay tukki te ñam na Angleterre championnat bu ma neex la muy championship muy premier league bu ma si am naa jël Euh, jamono bi loolu la nekk di xaar Kouyaté attend toujours un offre Kouyaté boobu ba léegi ci mercato bi waxuñu ko lu bëri parce que voilà moom fii Sénégal et tout amuñu si luñ ci dégg pour Sénégal yu bëri ñu ma koy laaj man si li ma déggoon c' était Turquie Transport mais jusqu'à présent xam naa ne xam naa ne en terme de salaire lañu la ñu gën a discuter parce que boo nekkee fin de carrière doo ñëw rek saa saaxee sa sa kii xam nga doo ñëw rek tay sa bopp comme ça parce que da nga bëgg jouer ko ko mais attention, attention, on a vu le cas de Salut on a vu le cas de Pamdia Soirée, on a vu le cas de Donc, on lui souhaite bon sens. Euh, donc il première ligue notre Nottingham est un international sénégalais pour moi, club information Samba euh, but euh, est-ce que équipe pour je pense que c'est l'année euh, dugal na nii rek si seen match amical dernièrement nii donc ndax gis nañ si ay information de Samba Diallo day dem à gauche à droite l'année dernière waaw mais cette année pour man dafa war un projet bien clair moom ak dirigeant yi Dynamo Kiev soit vous êtes prêt à me donner du temps de jeu bu fekkee problème pour jox ma ko quitte à dem Ligue 2 française quitte à dem Ligue 1 wala beneen club dem fa wane sa sa bopp donc on va voir euh, concernant Samba Diallo Ousseynou Ba Sénégal officiellement Istanbul Başakşehir Ousseynou Ba nag xam ngeen ko mu ne Olympiakos Olympiakos ñoo peut-être équipe bu Turquie bi mu dem fa am temps de jeu def fa ay prestation yu baax euh, équipe bu Turquie bi sukkandiku ci loolu ba signé loo ko trois ans de contrat donc félicitations à Ousseynou Ba mu nekk un défenseur bo xam ne gëj na nag Sénégal euh Matar Sarr euh, intransférable selon euh, je seul Pape Sarr intransférable c'est normal xalaat ñu benn yoon waa waa Tottenham jaay ko c'est c'est leur futur donc entraîneur bi passé l'année dernière à cette heure-ci boo leen fàttee ko interview bu mu njëkk a def dana Pape sa Sarr c'est le futur et ay kàddoom méngoo na li mu def comme jëf maanaam jox na ba temps de jeu joué na moo ngi progressé nank-nank donc bu ñu waxee bu ñu liiree si tax du xibaar ne waa Tottenham pare ñu benn yoon pour jaay kii di Pape Matar naan dëgg la parce que entraîneur bi daf ko jëfee entraîneur bi daf ko woon daf ko woon bu baax a baax Pape Matar jox ko confiance jox ko temps de jeu donc euh, pour le mercato daal bu kenn yaakaar ne Pape Matar Sarr dina jóge Tottenham di dem beneen club Mbaye Diagne seen neewam Mbaye bu benn équipe la nekkoon en deuxième division mu fexe ba équipe boobu yéeg moo leen yéegal sax daanaka ay bii yu bëri meilleur buteur et tout donc équipe bi yéeg première division xam nga donc am beneen équipe de division di ko laaj fay ko xaalis bu ëpp bi ko équipe boobu doon fay donc Mbaye Diagne comme xam ngeen ko saa yi euh, xam naa ne xam naa ne euh, carrière du carrière du joueur dafa gàtt Mbaye Diagne financièrement parlant loolu moo tax mu dem foofu donc moom aussi tamit Mbaye Diagne dañ koy souhaité bonne chance si si si si club boobu mu dem. Abdoulaye Sima trop cher pour Rangers du samay wax lii nii entraîneur bu Rangers moo ko wax Clément. Euh, Philippe Clément mu nekkoon ancien entraîneur de de de de Monaco xamal ne il veut bëgg na wax wax naa ne jour bi xeyna na jour bëgg na tok moom bëgg na jour bi tok lañu des maintenant lépp sa euh, xaalis la Brighton mom mom jour bi le Brighton bu ne du dem du dem ñom ils ont beau voir bëgg mu tok donc euh, Brighton demande plus ñom 7 6 millions lañu joxé donc Brighton bëgg nañu xaalis bu gën a lolu on va voir doomu sénégalais bi la lay def ndax day jël donc waxtaan ak dirigeant mu bàyyi mu tok di côté de Écosse. ou bien day me prouver talent du côté de Brighton parce que changement d'entraîneur am na et pour man âge maturité am na ko moom mii di euh, Abdallah Sima du côté de Angleterre on va voir la suite concernant ce dossier là. Bouna Sarr direction Atlanta jamono bi ñu may wax ak yéen ñu ne Bouna ce jeudi même euh, donc le agent mu dem Italie Atlanta Atlanta moo nekk lan moo jël coupe euh, Europa League bi donc pour signer foofu <laughs> bu fekkee loolu am na pour moi, c'est une excellente nouvelle pour un gars de 32 ans un gars qui est si blessé la jógee gëj na carrément gëj na euh, jouer un match en régularité du côté de Bayern presque il n'a pas joué même bi mu blessé il taxaw joué. jouer donc il na même en équipe nationale du Sénégal Pour que Atlanta l'un des meilleures équipes actuellement ah, donc euh, sur le plan Europe, parce qu'il y a des mais même euh, du côté de euh, donc du côté de Serie Italie, et aussi tu, vas disputer la Ligue des Champions l'année prochaine pour le loolu bu que de réussir non c'est une bonne nouvelle pour qui dit bonne Sarr donc en tout cas je lañ souhaité. donc Idriss Sabali signé du côté de Strasbourg Idriss Sabali il a 16 ans donc nekk fële ci Nancy Lorraine xam nga donc daaw nag moom sénégalais la daaw ñu def ay prestations yu am solo euh, coupe Gambardella ñu Marseille moom muy jël trophée boobu noonu coupe de Gambardella dañ ko fonk parce que bëri na ay joueurs yu prometteurs bëri na ay joueurs yu xam ne ñoo mën a football si tournoi boobu lañ leen gisee moom nag fa lañ ko gis mu def ay de tel ay prestations yu baax Paris dugg si Marseille dugg si ay lance club yu bëri dugg si mais Strasbourg la mu def choix pour man c'est un choix intelligent bañ a brûler les étapes à 16 ans.

Peut-être que le fait que mon échec, joueur de Marseille, mon nous sur le dossier là, pour conclure que une bonne fois pour toutes. Il y a Bologne aussi qui est, qui est, maintenant, euh, le joueur, mais le joueur, nous, nous voulons jouer Premier League. Donc, l'autre, l'autre, Wartan, là, vous mais la possibilité de Premier League, dis-nous quoi vous la possibilité de le jouer, peut-être, dis-nous Donc, de manière générale, il y a information, mais que tu